أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان الله mbokk yi suratul furqaan <clears throat> mooy le discernement di numéro vingt cinq ci alquran <clears throat> dem leen at ñu tàmbale ko ci aaya yi aaya vingt sept ñëw ba ci aaya trent ubbil nga xool ubbil nga liir ubbil nga utiliser sa xel avant dee di dikk avant bàmmeel nga fay des yow rek avant ngay dajeek sa borom bés penc ñaari kër moo am te ci benn ci yooyu lañuy ñuy dem muy aljanna wala safara yàlla yàlla boole ci waa aljanna musal ñu ci safara ubbil nga xool suratul furqaan muy numéro 25 tàmbale ko ca aaya 27 ba ca 30 yàlla di wax dafay xaw mu ne bés pénc ki daan tooñ ki ki nga xam ne daanul jaamu yàlla ki nga xam ne nekkul woon ci lu yonent bi doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam day màtt ñaari loxoom subhanallah subhanallah ñaari loxo adduna bu méttee des fois benn baaraam ngay kii ne ni mais ñaari loxo yépp nga màtt sa ñaari loxo di màtt li rëccu naan cey bu ma xamoon ndekete topp sunna yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk sama toppal sunna yonent bi sallam lii rekk a wóor wa yawma yaddu zalimu ala yaday yaqulu yaa laytani di rëccu naan aka moo neexoon yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila ne yaa waylata laytani lam attaxid fulanan xalila su ma xamoon ndekete diw du ma ko def xarit du ma ko seeti subhanallah lu tax mu ne ndax kat kooku dafa ma réeral waxuma yàlla waxu ma bi sallallahu alayhi waxu ma ñan ñooy saxaabatul kiram radiallahu anhum waxuma diine l'islam waaye ay mbir la may wax ay affaire u kéemaan la may wax ay diw ay diw ay diw mais du yàlla du yonent sallallahu alayhi wasallam mais du saxaabatul kiram su ma xamoon du ma dem su ma xamoon du ma fay ay paas su ma xamoon du ma jàppee diw def ko mu nekk xarit su ma xamoon du ma jël sax numéro téléphone am su ma xamoon du bokk sax ci ñu may xam ndax dafa ma réeral waxuma yàlla dafa mbubbawoo diine waaye waxuma diine dafa mbubbawoo mooy lislaam waaye waxuma lislaam boppam la may wax papaam yaayam maamam mais man li ma soxla loo xam ne moom mooy leer sam bàmmeel moom mooy xam yàlla xam yonent bi sallam xam diin lislaam jàngalu ma ko ndeysaan mu naan waqa après mu ne laqad adallani ani dhikri ba'da iz jaani yàlla mu ne wa kaana sheytaan lil insaani xadula sheytaan moom dalay bàyyi jeex na ci naam demal ci surat ibrahim sheytaan ba mu naan ah man de dama leen woo ngeen wuyu ma nax leen ngeen wuyu ma ma am ànd ak sama club tuddee ko diine mu ngoog ainsi de suite subhanallah yàlla mu ne nag yonent bi saa sallam ndeysaan di wax naan borom sant taala yonent moo ko wax nee na yàlla am na ci sama xeet ñoo xamante ni dañoo dumóoy alquran duñ ko jàng baa bokkoo ci duñ ko méditer subhanallah duñu xalaat ci alquran allahu akbar duñ ko jàng duñ ko dund sori alquran sori sunna ndeysaan kon mbokk sama nañu dellu gaaw avant rëccu di ñëw te rëccu boobu nag safara mais c'est trop tard safara dafa metti mbokk yi yàlla na yàlla ci safara yàlla na yàlla dugal aljanna allahumma amin ya rabbi